loolu rek la mais li ci des loo ci seet rek war nga ko cee mën a seet. moo fàttali mbokk auditeurs yi fii si Pikine euh, FM banlieue la ñu nekk ñu dalal tey euh, madame euh, Khoudia Mbaye di jaraafu Gandon jiite ko tey ñuy wax intercommunalité damay xaw des tuuti si suuf si sa digganteeg commune bu Ndar waa commune bu Ndar moom foo toll ñoo ngi wax intercommunalité ñun ak Gandon jox nga leen ay parcelles. jox leen jox leen parcelle parcelle Ah, joxoo leen fu nu fu nu fu nu fu nu extendre ndar daal di yokkaat tuuti ndar. Euh, déedéet la ma joxe de man. waaw ah, jox euh, jox nga ko jox naa leen fenn fu tudd jugóob. jugóob. jugóob mooy li gaañu di wax sànnaat pël. foofu si gàndong la bokkoon. ci gàndong la bokk. ba léegi nii. ah waaw. nga jox leen ñoom ñu. ñu def waaw parce que xam nga mooy sunu mbokk goxu mbaaj ak gëndar yi nga xam ne géej gi daf leen yëkkati man nag damay faral di wax ne manga judo telo juddoo genda hmm. Gendar. Eh, rue Camille Gueye. Hmm. Eh, bo jógee ci monument bi rek moy première koñ bi ngay traversé nii. Hmm. Eh, foofu laa judo sama kër maam sama mbokk yi dëkkoon yep yépp soxna pa aladi abba yi dëkkoon kër aladi mawa ak ñoo ñëpp léegi dañu dañ leen toxalon ben saa bi Gendar mettee xat yóbbu leen goxu hmm. léegi géej gi sonal leen euh, président Macky ne ma euh, dañu ko wax ne ko sama commune gis nañ fa fu ñu mën a dem. ah bon président moo la ko wax. waaw parce que euh, dama toog benn bés rek ñu ne ma waa banque mondiale ñoo ma woo ni ma dañu ñëwoon Ndar ñëwoon sama commune. ba gis fa benn bërëb bu nga xam ne soxla nañ ko pour reloger ay waa Gendare hmm. ma leen ah bon kañ ngeen fa demoon ñu wax ma ku ngeen àndal ñun ma commune Saint-Louis ak gouverneur ma leen kon dem leen commune Saint-Louis ak gouverneur jox leen ñun ma noonu foofu nee nañu nañ sa commune la nekk ma ne waaw sama commune la nekk bi ngeen fay dem wawu leen ma yëguma ko euh, man su leen neexee ngeen ni tukki naa wala seet ngeen ma gis leen ma may man foofu am naa fa administration commune ba yaa am na ay nit ñu koy doxal am naa fa ñaari adjoint ak tout les équipes commission domaniale ak yëpp ku ngeen woon ma gunge leen ñu ne noo ñoom daal dem nañ fa gis nañ foofu man leen waa léegi nag da ngeen di dem ngeen jël. ah madame le maire yow ñoom ñu ñëw kii la rek nga daal jox. déet man leen dem leen ngeen jël. ñu jël ah, xam nga mënuñu jël te. <laughs> sans rien en contrepartie mënuñu jël te amuñu kayit. si ñëw leen dara. ah waaw moo tax nag ma wax leen nañ dem jël ndegam mën nañ jox seen bopp mën nañ dem gis jël nañ dem jël. ñu ne ma non il faut que nga defal ñu affectation ma leen déedéet fi ngeen jaaroon ba dem fa ba décider ni foofu la da ngeen fay jaaraat ngeen jox seen bopp euh, ndaw si nag Louis Comte xama tubaab la woon xama lan mais en tout cas dem na ba ci président wax ko ko président woo ma dama tukki woon nag sax wax ma ni ma dafa am projet wa ak yooyu daal ni ma gis nañu nag fenn fu nga xam ci sa commune la nekk ma ne ko waaw mun ma dama bëggoon nga dimbali parce que le problème de gendar c'est quand même sérieux waxu wax ma ne ko loolu man d'accord naa ci li tax ma d'accord ni c'est un problème sérieux mooy man loolu mooy sama métier géographe aménageur. Hmm. Euh, temps yi ma nekkee conseil régional fii def naa fa deux mandats man temps yi ma fa nekkee sax commission changement climatique man maa ko yoroon. Hmm. donc li ñuy jànkonteel xam naa ko. waaye li mënul nekk mooy loolu am ñu dem sama commune di fa wër ba di fa gis bërëb bu nga xam ne euh, nee nañu foofu lañ ko bëgg. Hmm. Euh, di ma ko di ma ko soog a wax. jaaruñu si jaaruñu ci bunt bi man maay bunt bi commune Gandon ku bëgg dara Gandon da ngay wax ak man. xanaa da nga gàntal boobu. non gàntalu ma mais. wala da nga rafetal mbubu mbubu mbubu affaire bi bi ma ko waxee loolu daal moom. joxe nga waaye neexu la daal. xam na bu baax non balaa may joxe sax. Ama Diakhaté man ko président nag man gëm naa ne euh, loolu mën na nekk mais du sax doon affectation bi ñuy wax ñoom. Ah. man ko du nekk affectation de changement de destination lay nekk parce que man tamit urbaniste la avant loolu di xew ministre de l'urbanisme laa woon ba jóge fa. Hmm. man ko changement de destination lay nekk parce que foofu lotissement la woon lotissement Jugóob ba nga xam ne. Euh, loolu dañ ko defoon équipement stade la waroon doon. pour commune bi. pour la pour pour la région. ah pour le département pour toute la région. ouais, pour le c'était un stade régional qu'on voulait mettre. d'accord loolu du woon sax sama magistère fi laa ko fekk communauté rurale bi woon ñoom ñoo defoon boobu lotissement. man ko kon tey jii bu ñu ko bëggee du nekk affectation parce que loolu euh, affecté woon nañ ko ba mu nekk dans un lotissement ba nekk équipement sportif. Hmm. mais bu boobaa dañuy changer destination bi comme habitat lañ ko bëgg def léegi man ko mais euh, nag man dama am yeneen problème parce que foofu sorewul bi Màkkatube bi nekk euh, dëkk bu nga xam ne day fay xat dafay màgg te amul fu mu màgg benn saa communauté rural bi dañ leen doon defal lotissement mm-hmm. ba ñu ne cëpp lotissement bi ñu ne déet gouvernement daf fiy def ZAC mm-hmm. zone d'aménagement concerté ngaleel bi donc ñu randal population Màkkatube bi ni woon dinañ leen jox benn parti ci ZAC bi ñu dem ba ñu fixé valeur ZAC bi 4000 francs le mètre carré. Hmm. wàññi les parcelles de 300 def ko ay parcelles de 200. donc mënatuñ mënatuñ leen ko jox mun ma kat moo leen koy laaj man ko l'État en l'occurrence Khoudia Mbaye et Abdoulaye Daouda Diallo qui ont signé un arrêté pour fixer le prix du mètre carré dans la dans les ZAC à travers le pays donc loolu la mun ma non nañ leen ko jox noonu man ah, président xam nga loolu yow yaa ko sañ waaye kon da nga koy da nga koy wax gaañe ji def ko. Hmm. Mm, ñu waxtaan daal ba ba juboo mu ni ma dina defal dara waa Màkkatube yi c'est clair mais pour le moment lale waa Banque mondiale dañuy indi seen financement dañoo xaw a yàkkamti te loolu c'est des impactés. Hmm. naa ci jàpp man na ko euh, président réew mi yow la ko yàlla teg ci sa loxo bu la neexoon da ngay xëy rek ne ma pour cause d'utilité publique. Hmm. je prends man ko kon war ma ji ma jox danaa la ko delloo foofu na nga ko jël te bul fàttale population de Makacoumbe. mun ma je donne les instructions effectivement mu jox mu ma jox ko foofu mu reloger fa waaye immédiatement itam mu joxe ay instructions waa ministère de l'urbanisme mhm. pour que ñu ñëw fii gouvernance waxante ak commune Gandong pour que la le quart de la ZAC la les 25 hectares yi nga xam ne mosoon nañu wax ne dañ ko jox waa Makacoumbe ñu jox leen ko tey ji jox na leen ko ba aménagé nañ ko ba notification yi la ñuy xaar am na yu commencé génn mi ngi ci tableau directeur de l'urbanisme hmm. donc loolu mooy li nga xam ne joxe nañ ko ci euh, ci ci ci jugóob hmm. Sanar pour les reloger le relogement des euh, sinistrés de la langue de Barbarie comme kay c'est effectif kay léegi affectation la si fii ni que ñoom dañ koy jël foofu fan foofu jël nañ ko c'est pas un problème là Il faut vous dire le même coup limité Gandon mais quand même il y en a une autre limité Gandon mais nanak les membres sont actuellement moi limité faut le dire que c'est des administrés de Gandon c'est la commune de Gandon désormais tout à fait désormais hmm. euh, mais